Alors, d'abord, euh, rappeler que nous sommes ici dans un espace politique. ne sommes pas dans le cadre du gouvernement ni de l'État. Donc, il y a des questions, ceux qui sont les plus concernés directement le moment venu, les services techniques apporteront les réponses. Ceci étant, nous quand même... Euh, prendre un moment pour remarquer que d'abord gannaaw bi nga xamee ne massawu nañ sunu askan bi nga xam ne moo nekk ci difficulté yi nekk ci mbënd ndax xëy fanaan ci ndox ba ci say néeg ak ay xale yu ndaw war cee def sa activité quotidienne ku nekk xam nga ne lu métti yal nañu ko yàlla gaaw teggin waaye bi ñu waxee loolu ba pare dañuy am taxaw seetlu ne gis ne problème mu inondation du problème mu rekk infrastructure mun nga def infrastructure mais problème mu aménagement la mais aussi problème mu changement climatique la ñun bañuy ndaw nawet juin la juillet 15 août fekk mu jolli septembre octobre mu jeex waaye fii dem nañ fi ba fin octobre muy taw léegi nawet bi léeg-léeg mu démarré mel ni ñaari nawet lay doon ba pare léeg-léeg li muy taw ci ñetti weer mu taw ko ci benn bés changement climatique dafa bokk ci waxtaan wi kenn mënu ko dindi ba nga xam ne réew yi nga xam ne ñoo am problème jafe-jafe yooyu du rekk Sénégal yeneen réew ci monde bi am nañ ko mu lié à la pluviométrie exceptionnelle ak un changement de rythme sur la pluviométrie ñaareel bi mu doon un problème structurel fu ñu warul dëkk suñ fa dëkkee su ndox ma ñëwaatee ci ni nga xam ne moom lañ ko waxee sànq mooy fi mu daan taw benn weer fi mu daan taw ci ñetti weer mu taw ko ci benn bés ndox ma dina fa ñëwaat rax ci dolli fi ñu war joxe loo xam ne suuf la ñu war ko fa tabax ñu di ko fa joxe loolu nag c'est une suite successive d'erreurs yoo xam ne moo tax ñuy am ay problème mu inondation benn part ci erreur yi mais beneen bi nga xam ne nag jotewul dara ak erreur te nga te ñëpp di ci teg seen bët mooy ñoo xam ne ñoo ñu ëpp système de drainage fop seen système de drainage doon des systèmes de drainage multiséculaires terewul su mbënd mi su taw mi yegsee ñoom ñëpp a inondé kon wax ji dafa bëri te bokkul te bu ñu jaxasee lépp waaye li ñu mën a seetlu te rafetlu ko mooy li nga xam ne. le plan de décennal permettre na de dire à travers cet investissement bi nga xam ne c'est plus de 760 milliards sur 10 ans sur 10 ans ça a permis de dire que mbënd mi il faut ñu toxal ay nit waaye il faut ñu tabax ay infrastructure waa fàtte dafay xajul waay il faut rek ñépp nag fàttaliku su fekkoon ne Grand Yoff mi ngi am mbënd mi ba tey kon tey nu muy demee su fekkoon ne ba tey jii dalifor mi ngi am ndox kon tey nu muy demee su fekkoon ne ba tey jii fi ñuy waxee Medina Gunaas ma ngay am ndox kon tey jii ni ñuy tudde mbënd mi Pikine amatul euh, inondation Géejawaay amatu ko benn benn pàccu Kër Masaar amatul mbënd kon bu ñu kenn laaj koppar yi fu ñu ko dugal koppar yi fi mu dugg ñi nga xam ne dundatuñ ci mbënd mi te daan ci dund Bambey daan ci dund Kaffrine daal ci dund fi ñu leen limal yëpp ñooñu yëg nañ fi nga xam ne fa lañ dugal koppar yi dafa di nag nit lu mu def def du tere ñu ne ko wala fas lu mu daw daw du tere ñu la bali ko la mission de l'État ak la mission des autorités qui dirigent le pays c'est de servir président de la République ak ñi mu àndal ils ne dorment pas sur leur leur laurier ñu ne lépp sotti na waaye dañu ne liggéey bi dinañ ko continuer di yeggali te du tere ak plan Orsec bi li war yëpp ci dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe dinañ leen dimbali mbënn mi nag